asalaamaaleykum ñi ngi rafet naa nu beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës mbiram wér-gu-yaram wàllu opération jëm kon rek ci anesthésie ak la ca jëm mel ni kon Afrique la ko dese ci jéego bari na ngi rek ñu matal soxla sa askan wi 40 millions opération yoo xamante ne mënuñ koo def jëm kon ci ñaar téeméer bis bu nekk mel ni kon fii ci Sénégal it soxla yi bari na daanaka junni la ñu ngi xaar nag bateau Amérique boo xamante daal dañ fay opéré tuddee ko Mercy Ship indi ci saafara ci wàll woowu bu dee nag dem beeg dikk bi fële ca Kaolack ña ca yëngatu rafetlu dogal bi ministre bi ne da koy jël ngir rek ñu jëlee fi porte bagage ci ko oto ndax la ni surcharge bari na ñoom ànd nañ ci wante bëgg nañ rek li naan parc automobile bi ñu xoolaat ko gën koo méngale ak jamono su ko defee kon lépp luy jafe-jafe kon ci biir dem beeg dikk bi ñu indi ci saafara dana dem ca Kaolack fekk fa suñu ndaw di Papa Mbaye Diaw président de la république nee na rek réseaux sociaux doxalin wi ak nan koy réguler loolu nag kilifa yi nee nañ ànd nañ ci te ñu ngi ciy yoon rawatina kon direction communication ba nekk ca ministère communication ak lii di wàllu rek ba euh, ca jëm liñ bëgg mooy xool internet beek wax ju ñaaw ji xamante daal mën naa yee fitna bala taalab dëkk ñu gàttandu ko bu dee nag lii di fonds d'appui à la presse ñoom it nee na daal yokk nañ ko tey li bëgg mooy laata ñuy jox sax xaalis ñii di kërub tasukaay xabaar yi ñu dimbalee leen ko leneen ci wàllu fonctionnement ba te tamit wàllu publication ba nee nan bu ci acteurs yi àndee kon ñu daal koy publier su ko defee lépp leer Sénégal kon mbiri lëndëm bañ ci am sëñ de la paix président de la république moo jël boobee kilifa diine gi àdduna ci ndombatant googu ñëwaat ci élection législative yi mu jàpp ni kon faw rek kon ñu def moom président Macky Sall mu am ci majorité su ko defee mën a doxal wàllu politique am di leen ko yaatal si kanam su ngeen taaxirloo ñu yaatal yooyee xibaar. mbokk yi dal leen jàmm xibaar yi kon ñu tàmbale kook mbiram wér-gu-yaram Ndakaaru nag ab lal bu mag ci wàll woowu ñu ngi ko fay amal jëm kon ci chirurgie obstétricale rawatina rek soxna yi nga xamante ni kon dañuy am jafe-jafe bu ni mucc dimbal gën leen di dimbale wàllu anesthésiste lu ni mel Afrique nag mi ngi ci war a def jéego yi am solo ak cooxee doon ko nem ko ci wàllu daanaka ñeent fukki doomu aadama yoo xamante daal ay millions ñi ngi xaar am fii ci senegal nag opération yi daanaka moom it ay jafe-jafe la ci yenn diwaan ba tax na ak gaal goo xamante ni ma ngay jógee buuti mu réew ñu tuddee ko bata hôpital Merchisible la bu ñëwee it dinañ indi saafara ci wàll faatu ki Kiné dem Mohamed Mbaye lu jëm ci wàllu wér yaram ak faju seetlu nañu ni Afrique mi ngi wéy ba tey di ci des gannaaw xayma gi ñeenti aji tawat yoo jël yu ne kenn ki ñu ne Afrique la fekk baax téeméer boo jël ci médecin yi ñaar képp ñoo nekk ci Afrique spécialiste yi moom ñu jégalu kon ci boobee élément din ci ñëwaat ci rek wàllu wér boobu muy lël bi nga xamante ni Dakar mi ngi koy amal jëm ci wàllu opération ak tamit wàllu anesthésie yi nga xamante ni yëpp ñoom ñooy ànd ci wàllu faj ba léegi rek ak jàngoro ji ñu wax kon cancer bu larynx daanaka kon booli lay jàpp ñi koy am nag ami jafe-jafe bu mag a mag rawatina rek seen prise en charge ndax am na opération wala tamit boo xam ne buñ ko defee pare dañ leen defal ab appareil bu ñu def si seen ba léegi mu mën leen a may ñuy wax suñ ko amut duñ mën a wax lu ñu dégg lan mooy joojee jàngoro ñu ànd ceeg Marcel Farba Maroon ak Alioune Diagne. Une dépendance totale à ces appareils des laryngophones qui peuvent être implantés ou pas. Une condition sine qua non pour se faire entendre. Cet homme, agent au ministère de la Santé et de l'Action sociale, traîne avec cette maladie depuis quelques années. Celle-ci se caractérise par une voix rauque ou une grosseur dans le cou ou encore des difficultés respiratoires ou de déglutition. C'est au service ORL de l'hôpital Fan qu'il suit régulièrement son traitement. woon hmm, yi ñuy gis mooy li tax kii di sëñ géey doon agent ci ministère de la santé di mën a wax ay soxlaam moom nag ay at ni muy dund ak jàngoro ji nga xamante ne day diisal baatam mën ko néewil te muy am jafe-jafe nooyi wala sax tuuf li ni mu waree moom nag fii ci service ORL bu hôpital Fann lay topp traitement am. larynx boobu nag moo tax nit ki sooy wax ñu lay mën a dégg ndax waxukaay bi foofu la nekk mooy corde vocale yi nga xam ne nit ñi dañ koy dégg euh, larynx bi donc moom ñaari fonction principale la am maanaam wax bi ak nooy bi ndax ngelaw bi ñuy nooy su jàllee si bakkan bi si ci gémmiñ bi ci diggante larynx bi lay jàll balaa moo mën wàcc dënd bi jàngoro ji di cancer du larynx bokk ci benn ci xeetu cancer yuy dal baat li ko mën a indi bëri nen waaye cigarette la ñu jàpp ne moo si gën a yées am na tamit fi muy toll docteur yi du ñu am beneen pexe lu dul opéré ko. feebar bi nag lu koy joxe lu ëpp euh, tabac la maanaam cigarette ak sangara alcool ñoom ñu ëpp lu ñu koy joxe maanaam nit ki su fekkee dafay tux wala muy naan mën na koy am su fekkee dafa boole ñaari nag pour mu am ko daf koy gën a yomb. am na nag yeneen xeetu facteur de risque yi ñuy wax ne dañ koy wax lu mel ni ay poussière euh, bois ay poussière këriñ yu mel noonu wala ñoo xam ne dañuy liggéey si ay métaux wala ay acide sulfurique ñoo xam ne si wàllu industrie wala ay peintre yoo xam ne dañuy jëfandikoo yenn produit yoo xam ne dafa xaw a toxique loolu suñu yàggee ci liggéey boobu mën na leen yokk feebaru andil feebaru cancer boobu. du ñu opéré ci la ndaxte dama doon tëdd ba xaaju guddi mu jóg sote mu mel dañ ma capturé quoi dañ ma dugal ci benn biteel léegi man bañ ma opéré si laa noyewaate bon yooyu yëpp xamatuma ko après si laa defee traitement bi normal bañ ma opéré defal li may def après bon ma dem topp traitement bi yi la digle kon am nañ solo ngir ñu moytu cancer du larynx lu ñu ñaax daal population bi mooy képp koo xam ne da ngay tux wala da ngay naan soo ko nee bàyyi loolu moo gën parce que loolu non seulement dina jox feebaru canceru larynx am na yeneen xeetu feebaru cancer yoo xam ne dina koy joxe loolu benn la beneen bi mooy nit koo xam ne daf la dab parce que cancer bi dina dal ñoo xam ne sax tuxuñu naanuñu loolu aussi am na ay exception donc su fekkee dal la ba nga seetlu ne sa baat bi dafa dee mu mu bëgg yàgg maanaam baat bu dee boo xam ne dem na ba dépassé 15 jours ba di ko romb loolu waroo wax ni rek dama xaw a tooy wala baat bi dafa dee ngay jël ay pass yi def nangam loolu da dem consultation si ORL ñu seet corde vocale yi xool larynx bi boo xool ndax amul feebar boo xam ne euh, bu garaalu bu fa nekk bu jar bu jar a faj. jafe-jafe bu tar la ñuy amee jàngoro bi di jànkonteel traitement bi cher na dund bi metti lool loolu waral. association sénégalaise des laryngectomisés et mutilés de la voix di ñaax état bi ngir mu gën leen bàyyi xel jërëjëf Marcel ñëwaat kon ci li leen doon wax jëm ci wàllu chirurgie ak anesthésie ndakaaru nag ab lël ñu ko fi amal borom xam-xam yooyu ci wàllu opéré ñoo fi dajee jafe-jafe nag ci Afrique bari na ñi ko soxla ëpp nañ ñeent fukk ci ay millions fii ci Sénégal it daanaka war nañoo def ay jéego ci wàllu woowu ba na kon gaal gi naan sip dina fi ñëwaat ngir dimbale askan wi ci wàllu chirurgie Fatou ne Deme Mohamed mbay lu jëm ci wàllu euh, wér-gu-yaram ak faju seetlu nañu ni Afrique euh, mi ngi wéy ba tey di ci des gannaaw xayma gi ñeenti aji tawat yoo jël yu ne kenn ki ñu ne Afrique la fekk baax téeméer boo jël lu jëm ci wàllu wér yaram ak faju seetlu nañu ni Afrique mi ngi wéy ba tey di ci des gannaaw xayma gi ñeenti aji tawat yoo jël yu ne kenn ki ñu ne Afrique la fekk baax téeméer boo jël ci médecin yi ñaar kepp ñoo nekk ci Afrique spécialiste yi moom waxaale wu ñu leen ndax seenug lim sax nag dafa néew ci ñu war a taxawu lu toll ci téeméeri junni ci askan symposium bii nag solo si mooy dafay dooleel lépp lu soxal mbirum paju ci anam yu wuute. xool nan lañu mën a waxtaanee ba nga xam ni fii mën nañu am lu ñuy wooye plan national boo xam ne de chirurgie obstétrique anesthésie ak science infirmière pour que dëkk bu nekk am lu mel tableau de bord pour xoor nan la ñu war a maanaam yokk xam-xamu nit ñi ni ngeen jàngale ci université yi jàngaleen ci école de formation yi pour que noom loolu mën a yokk ba nit ñi mën a jotee faj bi mën a jotee fu nekk. ay jafe ci wàllu jumtukaay ay jafe-jafe ci wàllug euh, koppar ñu ne nag jot na sëkk ñu tëral ab plan waaye itamit ab nattukaay ngir gën a mën a xayma jafe-jafe yi. ñu njëkk comme tàmbalee mooy dëkk bu nekk ci ñeenti maanaam ñeent fukk ak juróom-ñaari réew yi nga xam ñoom ñoo nekk ci OMS Afro am na benn ñu ngi fay def benn saytu pour xool ku nekk fan nga ci toll fi ñu wax nii maanaam bi ñuy tàmbali amoon na fanweer yoo xam ni pare nañu. yaakaar nañu fii ak ñuy egg ci weeru wii di jeex maanaam mois de mai bi dëkk réew yëpp dinañu pare mais li ñu fi indi tey mooy ñu xool nan la ñu mën a xoole ñi nga xam ñeem la def li ci gën ñu bool ñu indi ko fii li ñuy def itam ci lu baax ñu baaxee ko ñeneen ñi ñoom tam ñu bugg ko seen réew. bu loolu weesoo borom xam-xam yi daañu gën a mën a dimbali ñiy jël dogal ci politique yi ñu jagleel wàllu wér-gu-yaram. bu ñu expert technique ñoom ñooy génnee lépp li nga xamante ne mun na. tax ba ñi nga xam ne ñooy décider mu xam ministre la mais surtout moo tax président yi nga xam te ñoom ñoo yore politique de santé yi dinañ leen jox ay euh, matuwaay yoo xam te dañ fexe ba solos ndaje mii nga xam ne dañ ko génn képp koo xamante ne am na problème mu chirurgie mun see jotee. paju mi jëm ci wàllu opération yi moo xam lu soxal soxna yi wàllu anesthésie dañ koy gën a dooleel ci Sénégal ndax sax nag ñu ngi xaar ñaareelu euh, bateau navire hôpital civil bu gën a mag ci àdduna bi ñaari fan lay doon ci weeru juin ci Ndakaaru jërëjëf Fatou Kiné dem dem beeg dikk bi ñu des ci ndax jëwriñ din ko denk yéene mooy ñu jëlee fi porte bagage ci oto yi nga xamante ni dañuy yëpp marchandise ba sax yenn saa yi muy waral accident yi ñoom nag fële kaw Kaolack transporteurs yi ànd nañ ci boobee dogal wante li bëgg ci gouvernement bu Sénégal mën naan parc automobile bi renouvellement bi ñu wax ñu gaaw daal di cay matal ndax loolu jàpp nañ ni accident yi oto yi ak seen melokaan bokk na ci Pambay Diaw Faligay si ñoom woto quoi su demee ba yàgg defar transport bu Sénégal nag daal di ànd ci dogal bi nga xamante nii moom la gouvernement bi jël ngir rek daal di wàcce porte bagage yi ci oto yi. waaye président garage bu ñoro bu Kaolack di xamle ne nguur gi danoo war a soppi oto yi nga xamante ni ñooy def transport en commun ci Sénégal. waaw porte bagage yi moom suñ bëgg-bëgg suñu yéene mooy tey mu jógee ko fi. ndax oto boo xam ne treize personnes lay yëpp amul porte bagage tey transport am clients yi dañ koy yokk mais tey slogan yi nga xamante ne moom la ñu doxal état bi jàppalewut oto yu baax waaw mais su fekkee ne yow amoo oto bu baax naka ngay mënee euh, changé parc bi naka ngay mënee doxal doxalin doxal xamante ni ëllëg si bi dana jëmale transport bi kanam. ñu daal di koy ubbi ca weer yi ñu génn nag chauffeur yi nekk ci garage bu Nioro bu Kaolack di xamle ne jafe-jafe yi bari naan fa torop Omar Dramé mi nekk président bi di sàkku ci autorité yi ñu daal di leen di jàppale. waaw gare routière bi gis nga ni mu mu ndox mu doy mais am na secteur yoo xamante ni ñeenti place la yu nekk ci biir garage bi latrique moo fa nekk tey bu tawee day taax sollicité nañ ko maire bi nga xamante ni moo fi moo fi nekkoon bi mu fi jógee itam maire bi fi nekk wax nañ ko bind nañ jox ñuy wax état mu jàppale ko pour que tey gare routière bi ñu defar ko defar boo xam ne defar bu mucc ayib association Manko defar transport bu Sénégal nag daal di daje woon ci garage bu ñoro ngir amal ay wàcce kaamir ñoom nag daal di ni sàkku ci état bi ñu daal di leen dimbali ci war gaynde yi ndaxte ñoom nee na loolu bokk na ci li nga xamante ni moo gën a sooxal transport ñu wax ci internet beeg la ca jëm njiitu réew mi démb bi muy dalal syndicat jëm kon ci remise cahier de doléances yi ginnaaw kon weeru mai beeg euh, bis bi jagleloon yooyu liggéeykaay yi nee na daal euh, fii Sénégal liñ fi gis faaw mu daal di dakk maanaam internet beeg ñaawteef ya ca nekk muy wàllu kàddu ki yenn jëfin loolu nag euh, kin dénk wàllu woowu ci ministère communication ak culture nee na ñu ngi ci tànk réguler secteur boobu muy média yi ci internet bi di site yi ak tamit yooyu et réseaux sociaux yombul wante nag faaw ñu jaar di joxante loxo ñëw na également ci li naan fonds d'appui bi ñu jox euh, organe de presse yi ngir ndimbal bëgg nañ sax au lieu mu nekk xaalis ñu jox leen ko ci yeneen i fànn te tamit bu jaadoo ñu publier ko ku ne xam la nga am moom Ousseynou Dieng moo nekkoon ganu info du matin. tey ji ñu am presque lu daanaka lu mat juróomi téeméeri organe mais loolu day dem ba ba poser d'abord problème économique maanaam ñooñu naka la ñu mën a dundee correctement beneen problème bi mooy problème de sécurité de journalistes tey ji xarala yi bees yi ñuy wax nouvelle technologie de l'information dem na ba nga xam ni tey jii ak téléphone bu la neexee nga def direct bu la neexee nga filmer lu neex nga def donc finalement dañuy dem ba nga xam ni xamatuñ sax kan mooy journaliste ak kan moo du journaliste looloo tax nag ñu décider en rapport avec acteurs yi état bi jàppale ñu pour que ñu mettre en place ay kuréel yoo xam dañuy assainir secteur bi. bu dee site internet yi les web TV ñoom bientôt régulateur bi dina leen o pour ñu signer ay convention a cahier de charge comme ni ko rajo ak télévision yi di defee convention ak cahier mooy tënk li nga war a mun a def ak li nga mënta def. loolu réseaux sociaux yi nag comme ni ma la waxee réseaux sociaux yi loolu journalisme citoyen la. loolu mi ngi ànd ak doxalinu réew citoyen ni ñu doxalee mais état bi mi ngi ciy réfléchir et comme dafa nekk une dimension planétaire maanaam ci internet bi lay jaar il faut que bu am une réponse généralement globale maanaam président de la république malgré contexte économique difficile yi dafa accepter nangul ko acteur de médias yi jële fonds bi de 700 millions yóbbu ko ba 1 milliard 400 à partir à partir de l'année prochaine on ne parlera plus de donner de l'argent directement il y de fortes chances, on est en train de faire des études pour aller vers des fonds d'investissement, des fonds avec des garanties. Publication boobu ngay wax patronat bi ci boppam ñoom ñi nga xam ni ak acteurs yi ñoom ñooy siéger ci comité bi bu ñu poser problème bi ñu étudier conditions yi ñun amuñ ci benn problème mën nañ ko def. wàllu njàng mi fële ca Fatick inspection d'académie bi bëgg nañ ni rek ñoom it góorgóorlu ci wàllu ragotina résultat yi nga xamante ne daal bëgg nañ koo gën a ñoŋal ndax Fatick mi ngi ciy defi jéego wante xeeb nañ ko ba tax na rek lépp lu jëm ci wàll woowu ngir ndongo yi nekk ci environnement bu leen mën a may ñu jàng am ay résultats yu baax dinañ ko amal buñ sukkandikoo ci inspecteur bi ñu ko dénk ñu ànd ceeg Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey kon nag mooy juróom-ñeenti yoon ñuy amal ndaje mi nga xam ni dañ ciy xayma jéego yi nga xam ni moom la ñu def ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ci région bu Fatick nag ren ji autorité yu bëri fekke woon nañu ndaje mu ni mel inspection d'académie bi nag profito ci ngir joxe rek résultat yi nga xam ni moom la ñu am daaw ci examen yi nemmeeku bi mooy ci CFE ci BFM ak itam ci baccalauréat daanaka résultat yi dañoo wàcc trop. gis nañu 2020 résultat yi ñu amoon moo gënoon a baax que 2021 daanaka bu ma jëlee élémentaire CFE perte nañu presque ñaar ñetti point ma jël BFM ñu perte presque fukk ak ñett ñeenti point ma jël euh, bac ñu perte presque juróom-ñetti point kon par contre performance la du ñu ni nag li waral résultat yi taxul mu baax loolu bëri na inspecteur d'académie bi di ci ñëwaat mais la tendance baisse résultat yi wàcc yi du Fatick kese daanaka région yëpp la xëy na nag ni ñu encadré candidat yi moo baaxul woon te itam xam leen ni l'année scolaire dafa perturbé woon lool. il faut noter qu'il y a une scolaire. ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñoo séq wàllu njàng mi njàngale mi ci biir région bi ni daañu teg ay jéego ngir rek yóbbuwaat résultat yi fi mu nekkoon xaatim nañu ab plan boo xam ni dañ koy teg rek ngir jéem a fexe ba résultat yi dellu di baax ni mu doon baaxee ci biir région bi. partenaire éducation ñëpp ñu nga xamante ni ñu ngi siy yëngu wax nañu mbir mi lu ñu si xalaat am nañu aussi observation yu ñu def léegi nag loolu la wax ay recommandations yoo xamante ni si tey jii bu incha allah déwén di classe 2022 dañuy gis na am yokkute bu bari si résultat scolaire région Fatick. waaye nag nemmeeku bi mooy boo demee ci enseignement technique bi foofu ñoom résultat yi ñu def baax na mu wuute loolu ak yi ñu gis ci certificat bi BFM bi ak itam ci baccalauréat bi. dem ca Thilmaka dip dëkk kon bu nekk ca département bu Tivaouane foofu nag euh, lan fa nemmeeku kon mooy taliba dox digganteem ak Ngaye Mekhe euh, tali boobu nag bitumé woon ko. maanaam defuñ ca goudron ngir rek kon askan wa seen i jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ak dem ak dikk ñu indi ci saafara loolu nag ku yëkkati lu ni mel mooy maire ba wàllu électrification yi ngir ñiit dëkk ba ci wàllu courant it bëgg nañ kon ñu indi ci lu ni mel fii ak Sénégal kon di jëm ci wàllu li naan rek wàllu électrification ci yooyu village ñoom it ñu gis seen bopp Cheikh Anta Diop say latiir fii ci Cilmaxo Mbaakol daanaka askan wi nee nañ sonn nañu lool ndaxte yàgg nañu di yëkkati kàddu di ko jëmale ci kilifa yi ngir ñu defar leen tali bi nga xamante ni moom moo jóge ngaay mexe ba Cilmaxa tali bi daanaka poussière bu xonq cuy moo fiy génne ay pakk-pakk la def benn oto mënu cee jaar tali bi ku ne gis na état bi mu nekk bi ngeen di ñëw defe naa fi ngeen jaar lu toll ci juróom benn weer ci ginnaaw lañu ñu waxoon ne dañuy commencé liggéey defaraat ko ñu gis engins yi nit ñi commencé vraiment tàccu waaye ñu dox diir bu yàgg la fi nekkoon booba ba léegi moo fi nekk kon mu mel ni travaux yi avancé wul kon ñi ngi lancer vraiment un appel au président de la république di ko rappeler na am sax xam naa ni fàttewu ko ñu jàppaleenu ci yoon wi ñu defar ko defar ko itam defar bu mucc ayib la ñu bëgg bëgguñu ñu tey teyal ko benn at ñaari at mu yàqu. leneen loo xamante ne mbébét nañu ko muy lu jëm ci wàllu jafe-jafe yi nga xamante ne dëkk yu bëri ci Cilmaxa am nañu ko muy jafe-jafe courant. xam ni changement jot na parce que li fi nekk yàgg na te li ñu bëggoon amaguñ ko depuis ñu nekkee euh, ci boppu mairie bi bokk na ci fexe ba tund wi maanaam les villages yi nga xamante ni la ñoo composé commune bi yépp ñu am courant. comme ni ko sunu ay voisins yu mel ni ay ñaaxeen ak yu mel ni ay kuul amee. Acil ah, Maxambaako nag gën ne nañ dara amu fi ba tax na ñu ngi sàkku nag ci njiitu réew mi mu gestu Cilmaxa tey lu jëm ci wàllu investiture yi tànneefu député yi ñu mën leen cee boole. jërëjëf euh, Cheikh Anta Diop sëñ Modou Kara moom it yëkkati kàddu euh, ci euh, Korite gi wax tamit ci tolluwaayu réew mi rawatina politique beeg li ni dëgmal muy élection législative yi jàpp ni kon moom Macky Sall mi mu jàppale war naa am ca majorité ca assemblée nationale ngir politique yeeg li ko dese kon ci réew mi mu daal di koy amal ca nam waree moom it daal di nañ koy tabb rek ci décret mu nekk ambassadeur de la paix rawatina kon rek fii ci réew mi Macky Sall moo jël boobee dogal mu daal di ne ci ñëwaat ca nam gën a yaatu ñu dëgg déglu ko ci micro Ababacar Camara ak Djily Niang ñu ngi jëm ci ay intixabaat li ñuy tuddee élection defe naa ne logiquement essentiellement xel sax du werante ni majorité bi Macky daf ko war a am ni mu ko bëggee pour mën a eggale mandat defe naa ne loolu amul wateel kii yàlla ak wateel ka maanaam xel laa la wax ak kuy def analyse di diagnostiser xool avant pendant ba noppi nekk visionnaire ci liy ñëw ëllëg ñaar yi ngeen dégg nii léegi ambassadeur international de la paix ak conseil personnel du président de la république du Sénégal yooyu dafa laaj point de presse. dafa laaj interprétation dafa laaj ñu décortiquer ko waaye li ko li in ajal lu nekk ak waxtoom xam naa daal sénégal yi ñi may dégg. ñu nekk ci bitim réew ak ñu nekk fii ci réew mi ñëpp góor a jigéen mag ak ndaw na nañu xam ne actuellement à l'heure actuelle waaw dafay ku baax ci réew mi fi mu toll jamono yi ñu toll nii. waa Yewwi Askan ñoom xëy nan ci seen njiital mandataire di Déthié Fall daal di déposer seen caution fële ca caisse de dépôt et des consignations ëllëg it direction générale des élections dina daje ak ñoom parti coalition yi ngir ñu def li naan tirage au sort ndax aljuma mooy bis bu mujj bi ñu war déposer seen dossier bëggoon faa boo xante wala coow nam daa amee kon bu nu defee tirage au sort daal ñun génn ca ordre ba ñu daal di koy mën a déposer ci jàmm ndax kon aljuma juróom-benn fan ci weeru mai bi mooy bis bi ñuy déposer seen dossier maanaam ñi bëgg a bokk ci yooyu élection législative dañ ci gëna a ñëwaata yaatal ko ak waa direction générale des élections fële ca Kaffrine moom euh, jafe-jafe am na ca benn bokk yaakaar ndax kii di Abdoulaye Sow di Sow di ministre dañ koy jéej ne dafa am kum faral bëgg koo boole ci liste ya te loolu ñoom ñi nga xamante ni ñoo ànd ak euh, maire bu commune bu laan ànduñ ci ndax dañoo jàpp ni même maire ba la président tànn Abdoulaye Sow nag moo bëgg a def lu ko neex Omar Ndiaye lañ ci ànd ak Boubacar Fall bopp coow tàmbalee jub ci département Birkelane ndax élection législative yi ñu dégmal maire ba ak yenn candidat yu bokk ci benn bokk yaakaar ñoo tuumaal ministre Abdoulaye Seydou Sow ne daf leen a bëgg imposer benn candidat boo xam ne amagum na ñaari ndomba tànk. maa ngi leen di yëgal ne kooku ab fi mu toll nii maire la HCCT la. kon bu bëggee nekkaat député dafay mel ne département bi amul nit wala amul ku fi am bopp moom dong fi nekk wala moom dong moo fi nit loolu nag duñ ko nangu tey te duñ ko nangu ëllëg te xam nañ ne loolu du yëfu président du yëfu ñi ko wër du yëfu ñu nekk ci wetam. c'est monsieur Abdoulaye Seydou Sow moom mooy wut ay mooy wut ay nitam moo bëgg fi teg ndëri luum mi ngi woo maire yi kenn par kenn. di leen wax leen signé leen fii ne ndëri ngeen di jàppale loolu moom la kenn musu gis dans le Sénégal le président de la République choix bi nga am ci sa taabal fi mu nekk nii leer na ñu bari confirmeel boobu choix ñu la bëgg a roppil di fa roof ndëri luum bu ko fa def parce que boo ko fa defee département Birkelane duñ ko woteel lu nu mel nag ñeneen nañ bu ko njiitu mi président Macky Sall nangoo ñoom dañuy banque seen loxo ci wàll wi. en tout cas bu dee ndëri la mu nekk HCCT ñu defar ko bu nekk député nekk maire. tey ñu ne dañ koy def député pour ànd ak moom man duma ko woteel damay toog sama kër. keneen ku mu doon nag keneen ku mu doon nag ci candidat yi dinaa ko woteel. parce que mënut a nekk maire bi nu fi mag saltaane dafa lànkoon loolu demaloon yoonu boppam tey mu dikk nu bëgg nu tànn ko. loolu mun a nekk te bëgg yor ñetti ndombay tànk su te ñu des kon loolu lan. ki nga xam ne nag moom lañu tuumaal ci mbir mi di Abdoulaye Seydou Sow bi ñu jokkoo ak moom nee na ñuy waxi kasaw kasaw yooyu du ci tontu ndëralim moom ba léegi nangoo ci àddu ci wàll wi jërëjëf Omar xibaar yi tàggat yaram yi Cheikh Tidiane jaw yow lañ ci ànd ak ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Chérif ñu tàmbale kooku ca daan ña ngay pa waajal ñaar fukk ak juróom-benneelu édition tournoi international bu judo. voilà ñeenti euh, réew nag dinañ bokk ci euh, tournoi boobu nga xamee ne participants yi daanaka natt nañ leen ci euh, huit cent ñoom ñëpp ñu leen di xaarandi foofu ca Ndar fukki fan ak ñeent ba fukki fan ak juróom ci weeru mai bi ñu ne ci loolu dañ ci teewlu Aïcha Sital nekk présidente comité d'organisation bi. Euh, di addu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. waaw ah, waajtaay bu fekkente ne li jëm ci wàllu ak accueil bi lépp lépp na parce que hôtel yeeg yooyu yëpp identifié nañ ko ànd ak ki nga xam mooy Meyssa Ndiaye euh, premier vice président CNG de lutte bu chargé wu loolu ñëw na bañ ànd ak moom def kii xas am na sax hôtel yi nga xam ne joxe na kon li ci def. Euh, Aïcha wax na ko y a les confirmations Euh, donc il y a la sous-région, la Guinée, euh, la la, la, la, la, Gambie, euh, donc, euh, et la Mauritanie, c'est l'équipe qui confirme. Il y a ne peut-être on n'a pas consulté le mail aujourd'hui, mais euh, Inch'Allah, si nous avons ni confirmé. Euh, en principe, on attend beaucoup de combattants quand parce que le club de Dakar confirme que nous à Saint-Louis et que sur les réseaux sociaux, ñëpp ñu ngi naan voilà Saint-Louis pour le 14 et on va remporter les médailles ñu nag duñ nangu loolu. dañuy ñëw ñu ñu ñu jox leen ñu lekk ba pare ñu dóor leen ba pare bàyyi fi ko bi ko ak médaille yi ko loolu la ñuy def. voilà moo doon wax noonu. de la ligue euh, judo bu euh, Ndar euh, Aïcha Sital nag di ngeen ko dégg suñu xibaar yi ci nasaraan ci guddi lay doon na dañuy dem Diourbel fi mu nekk nii nag ñaari fan dong des ci drapeau du chef de l'État loolu tax ba comité régional de lutte ba fa nekk nag ma ngay daw ngir rek fexe ba matal budget bi fi mu nekk nii daal jàpp nañ ni kenn jàppalewu leen ci mbir moomu ci noonu dañ ci teewlu Etienne nekk vice président bu CRG ba di wuyu ci ji àddu plutôt ci euh, micro Babacar Diouf. waaw waajtaay bu fekkente ne li jëm ci wàllu ak accueil bi lépp lépp na parce que hôtel yeeg yooyu yëpp identifier nañ ko ànd ak ki nga xam mooy Meyssa Ndiaye euh, premier vice président CNG de lutte bu chargé wu loolu ñëw na bañ ànd ak moom def kii xas am na sax hôtel yi nga xam ne joxe na ay acompte kon li ci des mooy euh, sur le plan matériel aussi gouverneur bi fi ministre ñëwee jox na ko ñeent fukki junni gis naa mu sotti ñu ñeenti charge suuf Manchester bi yaakaar naa moo ko fa def yeneen wàllu matériel bi nag aussi ñoo ngi ci lépp yemb na li ci des desoon mooy jurubeel équipe régionale Diourbel ndaa Diop aussi en tant que ministre euh, démb bi ma defee passage bi ci RFM ci seen onde woo nañu nee nañu dinañu recevoir tey pour jox ñu li nga xam ni mooy participation ci bés bi euh, Moustapha Guèye aussi nee na dina joxe participation honorable député Sadio Diakhaté it woote na léegi loolu daal lañ am ci eh, maanaam retour ci ñi nga xam ne jox nañ leen ko ci ku doon xaar juróom-benn million fii ma toog di wax ak yow ñaari junni yoraguma ko ay di daal la yoo fi yore te mu des ñaari fan. athlétisme plutôt la ñuy euh, wax ak euh, tournoi international euh, maanaam meeting international de Dakar ñu koy xaarandi ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu dëgmal di événement boo xamee ni budget bi suñu ko nattee daal dina toll ba ci deux cent millions ci suñu xaalis dañ ci teew Cheikh bu jara meeting international athlétisme bu Dakar dina am ren ji su fekkee ne bi mujjoon am atum war World Challenge la woon. bu 2022 bi ay athlètes yu dëkk Afrique lay dajale. le 25 juin bii di ñëw ci stade euh, Diamniadio bi lañ ko bëgg indi pour euh, indiwaat meeting mënuñoo tëb tëb nag abaat que dafa am conditions yooyu ak critères yoo xam ne il faut nga respecter ko pour mën ko meeting boo xam ne c'est dans la sous-région ñi invité les athlètes de la sous-région ak quelques athlètes étrangers ñi boole leen ak athlètes sénégalais yi donc ñi pour mën a def meeting bi. mais euh, bëgg nañ d'ici quelques années euh, ñuy eggaat suñu meeting World Challenge donc xam nañu yoon bi ñu jaaroon ba am ko donc fa la ñuy tegaat suñu tànk rek ba amaat ko incha allah. dellu si meeting international bu dakaar bi dina tax Sénégal fësaat ci athlétisme bi loolu nag am na njëg. waaye deful njàqare waa fédération bi. meeting bi nag xaaruñ ci ay performance donc euh, liñ ci xaar mooy euh, réussite sur le plan organisationnel fexe ba nga xam ne meeting bi dellusiwaat na ci jàmm ñu organiser ko mu jaar yoon moom mu ñu engouement ñu communier ak public bi donc ubbiwaale stade bu bees bi. donc fële ca jam ñaajo mooy annexe bi nga xam ne c'est dédié à l'athlétisme donc yooyu yëpp ñi gën cee taxaw ba nga xam ne daal euh, dana amaat yëngu-yëngu ci côté boobu budget bi mi ngi toll ci ay deux cent ba trois cent millions dina ko mën a organiser ñu dëgmal Jeux olympiques de la jeunesse atum 2026 piste athlétisme bu bees am ca jam ñaajo meeting international bu Dakar ñëwaat na ci waxtoom Cheikh Sadibou Diarra ñu jaaxale ko ci wàllu euh, football ca bitim réew ak Sadio Mané qualifié finale Ligue européenne des champions ak clubam bi di Liverpool bi nag mooy nekk ñetteelu finale Ligue des champions boo xamee ni am na ko ci juróomi at yi ñu euh, génn euh, démb nag Villarreal sono leen na leen parce que premier mi dañu leen ma mëne woon ba ci ñaari bal ci dara Boulaye Dia sax dugaloon waaye Fabinho ak Luis Diaz ñoo mujj égaliser Sadio dugal ñetteelu but bi nga xamee ni tax na mu battre record u Didier Drogba nekk joueur africain bu ëppale lim dugal ci phase éliminatoire Ligue des champions beneen jongante bi nag ñu ngi koy xaarandi tey ci guddi fële ca Bernabeu nar am ci diggante Real Madrid ak Manchester City Chérif Dia. mel ni kon match boobu ban heure la. 19 heures pile temps universel lay commencé xam naa ni. Euh, match bu solo la nar nekk. ci mm. ñaari équipe yu mag. Salah moom nee na bu sañoon taseeg Real ngir ñu jël seen revanche mm. lay <laughs> wut dina ci baax kon Sadio Mané gañu ngir ballon d'or comme que ki damoon loxo bi nekkatu fa xam naa moo tax mu ñemee Real. <laughs> final ba Ramos moo ko. Ramos muy solo kon ñuy xaar boobee match muy deuxième demi-finale Ligue des champions ci wàllu Europe lay doon ñu ànd ak yéen li gën a fës yéen kay yi ak moom Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fii ku fi mbaam mbaam lu ñu lawbe lawbe lu ci sa kaw wax ji diis na ngeen baal ma ko waaye noonee rek la mën a tënkee kàdduy Macky yi Vox koy kàdduy avertissement yu mu jagleel Barthélémy Dias ak compagnie yëral xët mu njëkk bi Macky Sall nee bàyyi benn maire di ko seetaan muy def lu ko neex maire bu fi nekk bëgg di def lu la neex ñu wàcce la bépp maire bu fi recruter ay nit jël leen di leen liggéeyloo ca ci yoon yoo xam ne bi ñu xamee ne dañuy folleeku ca la ñu recruter ay nit di dul jeex bàyyi leen ca mairie ba soog a dem loolee nag problème bu rëy lay doon ci réew mi te duñu ko seetaan muy jàll lépp la ñuy tegaat ci yoon bés bi le jour nañu meerum Dakaaru di Barthélémy Dias na waaj te xam ne Macky Sall mi ngi ci kawam La Tribune nañu Macky Sall mi ngi ci tànki folli Barthélémy Dias L'Observateur nañu muy Barthélémy Dias mi recruter bu yàggul capitaine Touré ak Guy Marius ak yeneen maire yi ñu jàpp dañoo def ay recrutement yu tegeewul ci yoon Macky Sall mi ngi leen di dànkaafu ba xamal leen ne maire yi boo gis ci état bi la bokk te état bi nit ci anam wu jaarul ci Sud Quotidien xamal ñu ne loolee lépp moom président Macky la ko wax bi muy daje ak syndicat yi ko doon jébbal seen cahier de ni ñu ko baaxoo ci fête du travail gu nekk Macky Sall jëli engagement ci seen kanam ci saafara lépp luy dox ci réew mi te jaarul ci yoon ba noppi na xuppaate sud nañu muy Barthélémy Dias meerum Dakar di yeneen maire yi nekk ci réew mi Macky Sall avertise na leen wax ne ci xew ci réseaux sociaux yi waxi ci a yoo xam ne dara la ñu liggéeyul liise ko moom gis ne démb bi muy daje ak syndicat yi moom président Macky Sall doon nangu seen cahier de doléance Macky Sall kaata ak ray la ne woon ca ndaje ma nee na mu ñu noo nangu réew mu mel ne Sénégal di réew mu ndaw ñu fi wax ñaar fukki yéenekaay ak juróom-ñeent di fi wax ñeenti téeméeri site internet ak juróom fukk loolee anarchie dëgg la réseaux sociaux yi ak ni ñu mel ci jamono mu ne cancer la waaye dinañ ci bi di poste ak la fa xew président ne jéggi na dayoo ndax poste la fa nekk ci ay liggéeykat daanaka mat nañu juróomi junniy liggéeykat mu ne ko jàppale nañu poste ma nga ñu teg ci jaag jëm moom ci armée de ngir suuli ko ndax président de la république nee na entreprise bu am juróomi junniy liggéeykat xittili ko du yomb mu ne mu ñunoo xittili entreprise boo xam ne amel na état bu Sénégal 189 mu ne état bi mënul fay ay liggéeykat yu bare noo rawatina liggéeykat yoo xam ne ñu bari ci ñoom tous ba tous booloo jeex liggéeyuñu ko société boobee muy wax di poste dafa mel ni ku jógi fuyee waaye la fa gis doy na waar ay téeméeri chèque prêt ak lu teg yoo xam ne boo doon xayma ñi ngi toll ci fanweeri million jàpp ñeenti téeméeri million la fa fekk fekk nañu it ca bureau ya xaalisu xobet xobet bu toll ci 150 bu deuxième cabinet bi l'observateur ne nañu moo santaane woon perquisition ba élection législative yi ñu dëdmal dépôt parrainage Le Quotidien mi ngi ñuy xamal ne juróom-benni fan ba juróom-ñetti fan ci yooyu élection dañu koy loterie ku saw tur génn nga dem déposer say parrain mu njaay Cissé bu ONG 3 di ñu xamal ci yéenekaay bi ne waa société civile bi ñooy def tirage au sort bi Abdoulaye Daouda Diallo ak jaloore ju réy ji mu def ci wàllu parrainage journal La Tribune xëyee na ko ci xëtamu njëkk ministre Abdoulaye Daouda Diallo Tribune nee nañu xadd na kaaba gi 81 la dajaleel Macky ngir élection législative ca Podor ànd ko nag ak jeunesse ADD ci njiital Mamadou bi di Maguette Sène moo xëy amee xët mu njëkk général bu kudd amal na fa waxtaan wu yaatu ca waxtaana ma ngi fay xamle ne maire bu baax li ko war moo di fàtte boppam te taxaw ci soxla askan yi fu ñu ko soxlaa rekk gis ko mu neet Malicounda doon ñaareelu commune ca département bu Mbour ci wàllu poids électoral ak it ca nit ña fa dëkk moom Maguette Sène nee na jàpp na ne Malicounda lu mu deedee war naam benn député nee net Macky Sall jubóole na njabootam ga ca Mbour ba tax jàpp na ne ci élection législative yi danañ fa amee 60 jàpp 70 pour cent kudd di centre des nee na yéene moo di fexe ba liggéey ko noo xam ne étudiant bu fa dugg doo fa bëgg génn ndax neex wax leen naqari ci xol mi ngi ci journal libération yëral xët mu njëkk journal bi soxna si ñu fekkoon ca Tiwaawoon pël ba sub korité mu faatu yéenekaay bi nee nañu Mariam Wade la tudd juróom benn fukkeer la amoon dañoo fekk ñu yeew ko xoj ko ba mu faatu jërëjëf moom Doxma Ndiaye mbokk yéen jërë ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média fii leen yem ak yéen ci xibaar yi bàyyi leen programme télévision Futur Média ñaanal leen bëccëgu jàmm